Ziguinchor mën ngeen a jokkoo ak ñun ci 33 859 70 70 wala ci sunu site internet www.c3s.sn sëriñ Abdul Ahad moom sëriñ Faliilu ak sëriñ Moodu Maamun ak sëriñ Seex Ibra ak sëriñ Seex Ummi ak sëriñ Xabaan ak sëriñ Seex Ibra ñu ànd ak sëriñ Seex Mbakke moom sëriñ Abdul Karim ñu ànd ak sëriñ sëriñ Faliilu yëpp Moustapha Mbacke moom Alaaji Ibnu Sëriñ Baara Mbacke moom Sëriñ Fallilu moom ci boppam moo jëkk a jóg ci bëccëg fekk Sëriñ Moustapha xam ne mu yoon moom Basiiru moom sëriñ Faliilu mu sëriñ Abdul Fattaah muy sëriñ Murtadaa mi ñu yebal mu ànd ak bokkam seen yi sëriñ sëriñ Murtadaa ngir gisee mu teel a dem ñaari rekk la bi muy dem tàggu benn ba mooy sëriñ Abdul Ahad mi ñu fekk muy rakkam te mat sëkk li li li waroon a def ñaareel ba daanam ci nit ñi ko wax fii wax ju bàyyi mooy ci Seex Muntaxaa ju pëstéef jëm ci moom xam naa ne loolu def na ma aar ba mënut a toog ci biir mbooloo su ko defee Seex Basiiru yaa ngi sëriñ Mbàkke yi sëriñ baa ngi di nuyu sëriñ Abu Baraka di leen sant di leen gërëm ci teewaay bu rafet bi ngeen xam ni teew ngeen ko fii rawatina cër bu sell bi ngeen xam ni jagle ngeen ko suñ kilifa bu tedd boo ngeen mu si Amadou Lamine te mu yeewu lool sëñ Abou nag nee na lim fi waroon a wax mu jëm ci jëm ñu sëñ Baara lépp sëriñ Cheikh Moussa nga wax na ko sëriñ Moustapha Diatara wax na ko bokk taalibe yi toog yépp it wax nañu kon njël ñu ci bamtuwaat jotaay ku fi teew gën ngaa xam darajey sëriñ Baara ci sëriñ Touba gën ngaa xam darajey sëriñ Baara ci Seex Mouhamadou Fadel xamme nañ ko ñaari jikko benn ba mooy woyof wax na ba ñëpp mën a jot ci moom te woyof moo dox diggante julli yi ci des ak taalu ak taalu bi moo nekk woyof kon sëñ Bara amoon ak taalu bi la danañ ci leeral tuuti waaye sëñ Bara itam ba tey Seex Basiru wax na ko bëggoon sëñ Fadilu la la cay seere mooy Cheikh Moustapha Fadilou mi nga xam ni moom la fi wóolu Cheikh Moustapha Fadilou mi ngi ci diggante Sëñ Abdul Karim ak Alaaji Baal waaye toog naa mu wax ni Sëñ Abdul Karim moom laa naw ci jaamu yàlla waaye Alaaji Baal moom laa naw ci bëgg Sëñ Fallu ak mën koo sant ndax bu ma ko wooyee téléphone su ma ko nee sëriñ bi na nga def mu ne sant sëñ Fallu sant sëñ Fallu nag lu rëy rëy loo xam ne lépp ci yàlla la bàyyi ko bad an waxatlu ndax abdi lam yaskur ni ida lam yaskur man ajraytu niamata alayhi loolu xam nañu moo taxoon sëñ Baara fu mu toll di sant sëriñ Falilu bi nga xam ni sëñ Tuubaa mi nu yàlla xéewaleen ci moom lu ko jaarale loolu ak cantam sëñ Faliilu bari woon te képp koo xam ne kii xéewalu sëñ Tuubaa gi bokk nga ci war ngaa sante noona kala boole loolu moo doon pëstéefu Alaaji Baal teelu bëgg da cay seere mooy barab bii nekk ci Patte d'Oie da xamee ne jox nañ ko këyit yi man mii ànd naa ak lenn ci mbokk yi ñu doon ko ci soññ fekk na booba moo fi nekkal sëriñ ba tàmbali woon liggéey bii ñu di ko ci soññ ngir bëggoon mu tàmbali ko waaye ba mu yàgg mu ni dama bëgg xam ni sëriñ Tuubaa laa fi nekkal mënuma koo tàmbali lu mel nii wëlbatikuwaat di tàmbali leneen fi kanam da ngeen may tuuti bu doxee ba ñëpp séen ko danaa yëkkati jumaa jii ci Patte defar ko sama loxol bopp te kenn ci am yoon loolee suñu borom fan fan yi mayu ko ko waaye ki mu fi bàyyi muy sëñ amoo bi mu toogee su ma juumul matul weer wala ñaari weer mu tàmbali liggéey boobee ci pësiru sëñ Baara boobee moom itam na ko sëñ Baara yéenee woon mu doxale ko noona ndax ba fii ñu koy waxee kenn déggagul ay communiqué yu bari wala wax yu bari yoo xam ne ji jëm na ci jumaa joojee te jàpp naa ni euh, sagal sëñ Tuubaa ak suturaal ko moo te mu àggale ko ñu ko waaye rek des kon loola mën nañ koo seere ci alaaji baal bu loolu weesoo euh, sëñ Abo nee na ci turu njabootu sëñ gépp mi ngi santal santale sëñ sëñ Muntaxa mbooloo mi nga xam ni mi ngi santale sëñ Muntaxa mbooloo mi nga xam ni ñoo jëf-jëf jii fi taxaw jëf fan yii nga xam ni moom lañ jagleel ñi nga xam ni seen kàddu jiboon na ci jumaa ji kenn ku nekk ñu jox la ci cër muy sëriñ Saaliw suñu kilifa bu tedd ga muy Seex Mamadu Lamin Baar muy sëñ Sidi Muxtaar nga xam ne kenn ku ci nekk la nga man ak la nga mënul lépp def nga ko ci jumaa ji ba mu àgg ci yi Seex Muntaxa mii nga xam ni li tax ma di ko sant la yàlla mooy ñooñu fi jaaroon ñëpp moom lañ defoon mu jëwriñ bu wëlbatikoon kon mu àgg ci loxoom jëwriñam yi fi nekkal rafetale la ko nii ña ci nekk yi ci bokkoon mu ñu boole leen de wax na ni mi ngi koy santale mboolem ñi nga xam ni seen loxo duggoon na ci jumaa yi wala ñu am xalaat bu bi mi ngi sant ñëpp di leen gërëm di wax ne nag ni moom sañu aboo sëñ Moustapha mi ngi koy sant di ko gërëm waaye nag sant googu ak gërëm googu mi ngi koy boole mboolem njabootu sëñ Fallilou mboolem sëriñ sëñ Fallilou ndax tey jii boo bi ñëwee këri sëñ Fallou yëpp ñëpp a ngi fi kenn desul sëñ Gallas Kalsom wax na ko léegi kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ndax dootu pëstéef nag ñuy guddal wax ji te ñu fi wax ñëpp jëmmi sëriñ Tuubaa tax ñu wax jëmmi sëriñ Fallilou ndax ñu wax jëmmi sëñ Alaaji Baara tax ñu wax buñ ci delluwaatee leneen suñ kaddu yi bopp bu guddee dootu doon pëstéef rawatina ñuy wax ci suñ kanam suñuy kilifa te wax ci sa kanam kilifa di yolomlu loolu suñ Sëriñ Tuubaa dañ koo tere noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ci kaddu yi